defu leen dara xam nga déjà tu perds tu laisses ta famille toog toog neuf liggéey ainsi dafa métti quoi mm-hmm, mm-hmm. il faut que la justice vraiment soit équitable et qu'elle soit rendue aussi au même niveau quoi merci beaucoup monsieur Kane en tout cas merci Bamba jërëjëf merci ça fait plaisir ñu ñëwaat Tamba lu bëree bëri Euh, jërëjëf merci beaucoup ñu ngi koy jaajëfal Abdou Khadre peut-être ñu dellu waat un ci par rapport ak euh, Pape Alé Niang du ñàkk ne moom it jot na réagir ci par rapport ak fi actualité bi toll parce que apparemment journaliste la boo xam ne rek day wéy di addu saa dëkk bi amee tuuti lu bees kaddu yu mu yëkkati lan la ak ci lan la addu waaw euh, Pape Alé Niang moom dafa daal di yëkkati ay kaddu daal di addu euh, ci li nga xam ni moo ñeel euh, amnistie bi nga xam ne moom la président Macky Sall bëgg dugal assemblée nationale la mu ko tënk dafa ko tënk ci ay kaddu kàddu français le temps que ñu koy teg ci wolof daf ni rien que le fait de penser à une loi d'amnistie atteste que trop de mala a été fait dans ce pays dans l'impunité totale J'ai vécu personnellement l'horreur en garde à vue avec des jeunes qui gémissaient dans l'indifférence totale. Mmh. Après quatre jours de grève de la faim à la cave, attendant tout naturellement la machine à mandat de dépôt, le procureur a refusé à mes avocats l'intervention d'un médecin. Le problème n'est pas la libération des détenus, mais de soigner les, des blessures profondes qui refusent de, de, de se cicatriser. Car tu as le sentiment d'avoir eu en face de vous, à un moment donné de l'histoire, des monstres abominables. kàddu yooyu la Pape Alé Niang yëkkati. Mhm. ni ki démb daf ko des termes très forts également. waaw très forts daf ko mhm. boole nag ak benn benn video boo xam ni dafay wone ay policiers ay forces de l'ordre ñuy torturer des sénégalais am na koo xam ni ci benn batiment la ñu ko teg buux ko mu daanu ci suuf gars yi sëqatoo ko di ko dóor ak des coups de poing ak des matraques am na koo xam ni Pape Alé daf ko wone ci benn vidéo ñu euh, euh, dóor ko bal mu daanu gars yi ñu dóor ko grenade lacrymogène je ne sais ñu jàppoo ko yóbbu am na koo xam ni mooy ki ñu jàpp récemment fem bi ñu jàpp récemment mu sol benn maillot Sénégal mhm. ñu dóor ko ci bopp di ko di ko di ko dóor des coups de poing am na koo xam ne aussi dañ ko tëf benn planche dañ ko jàpp di ko ko dóoree mu nekk des images yoo xam ni gis nañ ko ci vidéo bi nga xam ne pap Alé Niang mi ngi koy mi ngi koy mi ngi mi ngi koy wane ci vidéo bi mu ne rien que nga xalaat loolu rek ci benn loi d'amnistie da ngay njort ni da ngay xalaat ni am na lu méttee méttee méttee métti loo xam ni teg nañ ko ci kaw sénégalais ci réewum Sénégal mu ne tey jii tey moom personnellement dafa dund li nga xam ni moo di persécution bi dafa dund li nga xam ni moo di métital bi dafa dund li nga xam ni moo di xorñoñal bi nga xam ni doon nañ ko xorñoñal nee na tey jii bi nga xamee ni dafa dem fi nga xam ni moo di foofee ca tribunal wala ci kaso yi nga xam ne ko dugal dafa rencontrer des hommes yoo xam ne ay nit ay jeunes yoo xam tey ji dañ doon souffrir hmm. ay nit yoo xam tey jii dañ leen a dóor ba gaañ leen dañ leen a dóor ba mu dara te li ñu mooy ñu fexe rek ba bàyyi leen ñu dem seeti benn docteur ñu saytu seen wér-gu-yaram mais loolu lépp président Macky Sall dafa lànk ne du leen génne. loolu Juan Branco euh, évidemment l'a confirmé bi mu demee Kaso Rebeuss. voilà parce que gis nga loolu ñu wax bu waxee ñu ne kii dafay def activisme bien sûr que euh, Juan Branco dafay def de l' activisme mais tey jii boo xoolee image yi nga xam ne moom la ñu monté tey jii su ma amoon su ma amoon possibilité woon Sénégalais kii nga xam ne dafa jël benn saagam daf xaw ma dafa jàngi ba wàcc xaw ma da xoolal ni ñu koy dóore di ko di ko rëkk di ko xët di ko kurfañ di ko jël ay planche di ko dóor jël seen Abdou Khadre man du ma la nax mais ah. maa woon ci VDN bi un jour di def euh, sama liggéey mais apparemment daa am ku jàll di jàll bi mu jàll mi boot saak ndeke drapeau Sénégal la ci dugal mm. mais kooku ci noonu lañ ko dugalee ci oto bi moo def wala def je sais pas boo ko trop man keroog bi ñu ma jàppee au niveau de fi nga xam ne moo di cité kër góor gi mais am na ku ma nekkal koo xam ne ci ci ci lii la toog du mu tuuti ci ci beeke xaw ma non mooy euh, pousse pousse la toog mu ngi ci oto bi ñoo ko bokk fauteuil roulant yi waaw je pense que da ngay gis la da ngay gis la xam nga tey ji ñi nga xam ne ñooy def loolu tey ji dafa Alioune yaakaar naa su ma ju moom moo ko tey def nii képp koo xam ne war nga dugg ci benn koor euh, police wala gendarmerie war nga am au minimum bac war nga am au minimum bac mais ñu jël ku leen neex dugal ci biir xoola xoola xoola xoola métti di ñuy def di jàpp Sénégal yi di leen dóor di leen korpañ te ñi nga xam ne ñoo koy ñoo koy filmer tey ji dafa am loo xam ne Sénégal dafa dafa dafa toll instant bi nii tey xam nga bu ñu bu ñu nekkee ci nguuru Macky Abdoulaye Wade amaana téléphone demewul woon noonu amaana les réseaux sociaux demewul woon noonu mais tey ji gis nga tey ji képp koo xam ni policier nga wala képp koo xam ne nervi nga tey ji say ay image mi ngi ci euh, plainte bi nga xam ne mu leen dugal CPI tey gis nga dinaa la xamaleen de euh, Hissène Habré ban mais ak loi d'amnistie bu ñu mënti def tey jii gouvernement bi nga xam ne mooy ñëw mën na jàppoon ñuy torturer des Sénégalais ñu rey ay bakkan tey jii ñu saccagé wala ñuy torturer ñeneen ñoo xam ne nekk ci kaso bi tey jii mën nañu voter beneen loi boo xam ne dafay nii la loi d'amnistie bi ngir ñu topp ñi nga xam ne ñoom ñoo def euh,

gis bi muy dem tribunal ci ay damm-dammam lañ koy boole yóbbu tribunal gis nga récemment loo xam ne man gisuma ko man donc Sénégal yëpp ko gis benn xam ne dafa dafa toog ci benn pousse-pousse fauteuil roulant benn di ko dóor di ko dóor di ko dóor ba ko jël ko dóor ci biir oto bi xoolal xale bi ñu fi jëloon teg ko teg ko teg ko comme bouclier gars yi ko sànni ay xeer mm-hmm. loolu ay image des faits réels yoo xam ne dañ ko gis nii nit ñi di ko gis ñu jël ay image semblé ko ñu bëgg ñu def benn loi d'amnistie pour ñooñu nga xam ñoo ñàkk seen bakkan ñu perte loolu du fi amee mën nañ ko def nag ci seen xel mën nañu dalal seen xel ne luñ bu dugalee loi d'amnistie assemblée nationale mën nañ ko voté amul benn problème mais tey ji gouvernement bu ñëw ay la yoon mu nekk Ousmane nekk Pape Djibril Fall wala mu nekk Déthié Fall wala mu nekk ak keneen ak keneen keneen tey ji ku ñëw di nga solution te il ñu leeral les Sénégalais en ont souffert en ont tey ji du ñu loolu nga xam ne moom lañ fekk ndax xeex justice ndax réew mu jàmm ñu bàyyi ñu rey nit ñi ba ñu leen di bàyyi ñuy dem ñu bàyyi ñu ab loi si tey ji képp koo xam ne laala nga ci booyee boobu bu nguur gi jeexee nga daw génn Sénégal waaw en tout cas keroog bi ma demee tribunal wala bi ma demee euh, prison bu Rebeuss euh, dajee naa fak la famille Sané euh, booy fàttali ko Abdou Khadre mooy dañu dem jëlsee hmm. je me man si Sénégal la nekk wala ci film nañ ay takk der ay camion la indi ñu plongé dugg ci kër gi door fa ay grenade jàpp ay nit yóbbu kooku finalement mu ngi ci kaso gi keroog jabaram ñëwoon na tout simplement parce que dañ koy jiiñ ne ay cocktail molotov ak ay terrorisme la ak action yu mel donc tey ji ñu libéré leen. bari na ñaata nit lañ jiiñ terrorisme tey ji ñu libéré leen ñu libéré leen ñaata nit lañ ne ay force occulte lañ ñu jàpp leen dugal leen ci kaso bi tey jii libéré leen xam nga tey dafa benn eh, audio bu ma dégg audio bu xoromu bu xoromu dañ ne Ousmane Sonko mooy taal mi. nañ ko dugal ci kaso bi ñu dugal Ousmane Sonko ci kaso bi yëf yi gën a takkanaas ñu ne Ousmane Sonko mooy indi jàmm ci réew mi nañ ko tijji xoolal boobu paradoxe. Mm-hmm. xoolal koo xam tey ji dafa dem ba doomam ba jabaram am doom mu koy ngénte ñu jël ay camion ay force de yóbbu leen fa ñuy fuye koñ bi mm-hmm. du fuye kër gi nara sax jàpp jigéen ñi nga xam ne ay gan lan woon ci biir non yóbbu nga xam ñoo ko buñ ko fekkoon yóbbaale ko <laughs> la ñu ko bàyyi ay gan yoo xam ne ñoo ñëw ci ngénte bu ñu fekkee imam ba yóbbu ko léegi de day day waar euh, xam naa ñu bàyyi rek nga jéem ñu visiter un li xew fële ca dialogue national parce que apparemment am na des informations yuy circulé ma bàyyi la nga dem euh, dañ la ko lëñbët le temps également peut euh, ñu ànd ak internet yi ñoom ñu mën a wéy rek di joxe seen gis ak seen xalaat ci par rapport ak waxtaan wi nga xam ne ñu ngi ko sumb di waxtaanee un lu soxal dëkk beeg ni muy doxee ak éventuellement ci par rapport ak situation yi Euh, ci àllarba gi ci conseil des dina ko fas yéene jébbal ay jëwrinam ñu jébbal ko assemblée nationale euh, bu ko defee ñu daal ko voté jéggal lépp loo xam ne rek ay